salaam sama gars yi daal leen ak jàmm sama chaîne YouTube ci vidéo bi nag dama leen bëggoon won nan ngeen di def ba installer YouTube ci seen Apple Watch voilà parce que bu YouTube léegi mën nga ko am sa Apple Watch sans nga utiliser léegi sa téléphone pour nga def ko lu yombul da ngay dem Play Store euh, App Store autant pour moi dem App Store léegi soo demee App Store nga recherche nga jëm ci recherche fii nga bind what's what's comme ça voilà nga recherche ko soo ko moo nekk bii nii ak logo bi xàmmee leen ko bu baax gis ngeen logo bii la léegi après nga bës ci téléchargé ñu patiente tuuti mu téléchargé ko voilà téléchargement bi yàggul vite fait la voilà léegi su téléchargement bi jeexee soit nga ubbeeku nii mën ngeen ko ubbee nii comme que même soo demee sa application yi di nga ko gis mu ngi ci suuf suuf voilà parce que double V la la ah. léegi par exemple moo nekk nii voilà léegi fii soo ñëwee dafa lay wax par exemple euh, na nga sélectionné sa région mais bi que ne euh, Sénégal nekku fi suñu région nekku fi donc mën nañ jël euh, bu Amérique bien ah. léegi ñu def doon voilà bi bon ma def dimis voilà soo xoolee yaa ngi nii ci euh, yaa ngi ci YouTube léegi nag su fekkee ne da ngaa bëgg def ay recherche par exemple ci vidéo spécifique parce que li comme soo duggee YouTube la rek ah euh, vidéo yi mu lay proposé la léegi soo bëggee recherche da ngay pousse nii soo poussé danga nga gis fii search xam nga léegi nga bës foofu léegi fii soo ñëwee nga bind tour turu chaîne bi nga bëgg a lii fekkoon informatique wolof laa bëggoon exemple mooy sama chaîne bi n'hésitez pas fekkee abonné goo tamit ngeen abonné informatique wolof informatique wolof par exemple ngeen def recherche voilà léegi soo defee recherche dalay proposé informatique wolof yu bari léegi nag biilo la ñun bii la ñu soxla nga bës bii léegi soo ko defee rek automatiquement da ngay gis par exemple suma chaîne ngi nii avec ses nombre d'abonnés bon mën naa bës si chaîne bi pour dugg ci chaine bi vraiment voilà voilà bu leen fàttee abonné fekkee abonné goo leen ah. voilà pour ngeen abonné très simple ngeen clic ngeen cliquer fii juste voilà léegi soo leen xoolee euh, video yi ma jot a def mi ngi nii bi ma mujjee def mooy configurer un routeur TP-Link voilà kii bi ak miniature bi yëpp ay affiché par exemple su ma duggee ci présent bi da ngay gis sama générique bi yëpp day day ñëw tranquillement léegi bouton play pour play vidéo bi voilà vidéo bi deux minutes la voilà bon lii sama sama WhatsApp voilà gis ngeen mën naa yokk volume ko mën naa koo wàññi ah. play maanaam pause yëpp danga koy def voilà gis nga abonné activé kali cloche notification bi gars yi bu leen ko fàtte am solo la gis nga ah. mën naa ko pause mën naa sama gars yi fii la ñuy yemale vidéo bi euh, ci beneen vidéo bii di ñëw dinaa leen won nan ngeen di def ba utiliser whatsapp ci seen Apple Watch voilà loolu tamit c'est possible dinaa leen won vidéo yi di ñëw nan ngeen def ba activé ko jaa ngeen jëf sama gars yi daal ñu ngi leen di jox rendez-vous prochainement jaa ngeen